Souleymane Diallo ñu ngi lay nuyu di la dalal ci euh, Rewmi FM. ñu ngi la di nuyu di leen fay. Mm-hmm. Euh, di euh, yéene yeewu jàmm képp kuy auditeuru réew mi FM. Mm-hmm. di leen nuyu leen sargal. wax ci li nga xam ne mooy rapport OIM bi mu fësal bu yàggul euh, ñu wax ne mille cent quarante six ñoo ci faatu ci atum ren ci juróom benn weer yu njëkk yi te ji noo ko jàngatee chiffre googule. waaw ñun de wax dëgg yàlla sunu dañu am naqar. dañoo am vraiment tiis chaque fois bu ñu déggee am na doomu aadama bu génnoon wuti bu génnoon wàll yaan euh, mu bàyyi fa bakkanam nakar la ak tiis bu rëy si ñun euh, ñuy jaale askan bi di jaale mbokk ñi nga xam ne seen euh, doom seen mbokk dafa des si si yoon pour pour dem wuti yaakaar naa ni dem wuti wa jaruta bàyyi seen bakkan et que bon comme ni ko OIM publié boo xoolee chiffres yi chiffres yi dafa yokku ren. Mhm. et ñu doon xaar mu wàññeeku mais dafa yokku yokkute bi nag euh, dafa am si ay fànn yu ñu koy xoolee. Mhm. parce que ñii jëm dañu dem pour wuti. daanaka euh, génnewu ko boo xam ne sa wuti koom-koom la sàkku ji koom-koom. Euh, également am na beneen pàcc boo xam ne pour africains yi boo xoolee boo ginnaaw booru Mali euh, ak Burkina Faso ak yooyu yëpp euh, daanaka seen kaaraange dafa yëngatu. Mm. wàllum politique bi wàllum djihadisme yi wàllum terrorisme côté boobu dafa tax mu am ay déplacement yu bëri yooyu tamit les rax si dolli aussi frontières yi ñu tëjoon si wàllum mbas mi téyewoon ñu bëri tënkoon ñu bëri ñëpp jugandoo commencé dem ak bu ñu fàtte ni que tamit. Euh, mbëkk mi fi mujjee génn euh, dafa bàyyi ñu bëri bëri bëri ci biir géej te yaakaar nañu sax mbëkk mi bokk na si li war a tax li gën a tax euh, lim boobu yokku nga jàngoot ko ci paramètres yu bëri yi waral selon yow mu am mouvement bi mais tey ji est-ce que mën nañoo ne mbas mi tamit am na ci part de responsabilité. mbas mi am na lum si doon mbas mi am na lum si doon mais boo xoolee ci diggu mbas mi sax am na ay gaal yu fi daan génne di dem. parce que dañuy si diggu mbas bi lafi fi yenn gaal yi doon dem. Mhm. donc mbas bi bu mu tëjee ñële jàpp ni que côté Europe bi ñoom dañu xaw a bàyyi seen frontières yi si la si bëri génnee donc conséquence bi mbas bi si la bokk mooy benn ñaar mbëkk bi mu si la bokk ñett bi mooy situation géopolitique bi tax na tamit loolu lim yooyu yokk euh, jafe-jafe yi nga xam ne àdduna moom lay euh, dund jamono ji jëm ci crise économique bi euh, tey lépp lu jëm ci émigration nga foog ne dina yomb. ca ñu koy def. waaw xam nga euh, ñun ab lu ñu mun ci def politique rek ñoo mën a jël yenn décisions yi ñoom ñoo ko war a mën a appliquer. et que tant que ñu ngi xool ci loolu politique yi ñoom ñoo war a xool nan la ñu saytuwee pour mën a dàkkal loolu ñun ay euh, ñun dañu wàll yaan rek ñun dañ ci jàpp nii rek mais ñi yore décision politique ñi yore déci euh, pouvoir politique ñoom ñoo war a mën a encore yokk li ñu nekk di def pour mën a kii lenn nag laa leen mën a xamal mooy ni que migration. mooy bu régulière bi mooy bu irrégulière bi ala kulli alin day am nit yi bu ñu awulee ci géej gi dañu dox dem wala dañ jël avion dem de immigration moom day am léegi nag lan la ñu war a mën a fexe mooy ni que wàll càpp pàcc bi ñu war a mën a émigrer ñu fexe xool nan lañ koy changer facilité visa euh, ñi bëgg a dem tant que nag ñu ngi am problème mu visa tant ñu ngi am problème mu visa wax dëgg yàlla immigration clandestine immigration irrégulière bi ñuy wax day day am. Euh, Sénégal yéen nag ñuy doon wax euh, bu yàggul ay weer ci ginnaaw nii dafa amoon ay sénégalais yi nga xam ne dinañ leen dëpp ndax dañoo nekk ci ay situation irrégulière ca réew ga ñu nekk muy Espagne. tey waaw xam nga ñun amoon na fi jamono boo xam ne dañ doon suivre benn dossier mooy ni que bon après sax biñ ko waxee ba coow bi jug si la fi président wu Espagne ñëwee mooy ni que euh, Union européenne dafa xaatim ak ay dëkk particulièrement Espagne hmm. France ak yenn kii maanaam mooy ni que ñi demoon te nekk en situation irrégulière yëpp nañ leen delloosi loolu euh, lu amoon la. Mm. ba ñu jël ba ñoom ñu commencé woon wut ay avion di louer ay avion pour delloo si ñooñu. Mm. suivre woon nañ ko ba foofu léegi nag li tax loolu ñëwul euh, rapatriement boobu euh, amul xamuñu ko mais ñu ngi taaxir lu di xool ni que ba fan lay mujjee li si wéer ba wóor ni que mooy ni que Union européenne moom. pare woon na pour ñi nga xam ne ñu ngi si si espace am te nekk en situation irrégulière nan lañ leen di delloowee loolu moom lu wér lu lu lu lu wér la. et justement nga wax ko mu mel ni boobu boobule sax bañ fi ñëwee ñoom euh, autorités yi euh, am na lu ñu soppi maanaam ñu formaliser lii di émigration bi euh, foog nga ne loolu tamit dina am lu mu wàññi ci lii di mbëkk mi. waaw xam nga ñu wax leen dara gis ngeen formaliser yooyu ñuy def dëgg la ay xaatim la nag ñu ngi kii bi mais man li may wax mooy li essentiel bi nga xam ne euh, li war a mën a xeex dëgg-dëgg immigration irrégulière mooy ni que nañu yombal visa yi visa yi tant que ñu ngi koy yombal dem leen di jox exemple tey am na fi ñoo xam ne ñu dem toogi Europe. fii da ngay xool am na fi ay cordonniers yoo xam ne bu ñu amee possibilité yi am visa wu trois semaines quatre semaines dem si benn foire wala dem si benn exposition wala dem si benn visite partenaire wala dem wuti marchandise suñu leen joxee visa boobu ñu dem bu leen wóoree ni que suñu demee def li ñu war a def foofu def seen liggéey dellu si waat si dëkk bi suñu laajte waatee beneen visa dañ leen ko jox ñi bëri dem nañu tàggatémbe foofu parce que joxe visa bi jafe-jafe pour nga am visa mooy liggéey sax nga bëgg a dem vacance trois semaines un mois sax ñu indil la dañ lay laaj ay kayit yu dul jeex kayit yooyu yëpp boo ko joxee du tax ñu jox la visa donc visa bi fi ñu ko teg moo tax ñu bëri di suñu suñ suñuy demee dañu toog donc euh, man li may wax mooy ni que solution numéro un par rapport par rapport ak problème mu visa bi mooy ni que nañuy yombal ñi nga xam ne ay porteurs d'affaires lañu ñi bëgg a dem ci ay foire ñi bëgg dem ci ay rencontre mu wóor na la ñii mën nañu dem ñoo tamit ñu dugal leen ci benn protocole ci benn convention boo ne képp ku ñu jox type visa boobu boo demee ne la wóor ni que munoo régulariser situation munoo fa toog te buñ la jàppee premier contrôle bi ñu njëkk a jàpp rek mooy dañ lay takk delloo la gis nga mécanisme yooyu buñ ko tegee nit yi mën nañu dem di ñëw te loolu dina wàññi considérablement wàllum euh, mbëkk mbëkk euh, immigration irrégulière ñaareel bi aussi wàllum koom gis nga kii di bale Ndakaaru su ko wóoree ni moom ak kii di bale France benn koom la ñu am benn payoor la ñu am kon kooku du yàkkamti génn pour dem France ñetteel bi nga xam ne mooy li ci am mooy xëy gis nga il faut tamit ñuy wutal xale yi xëy ak gontu liggéey mooy yore doomu aadama moo yore ngoro doomu aadama ñuy fexe di jox xale yi liggéey liggéey tamit bu bakk bu bakk ne liggéey boo xam ne mën nañ si gis seen bopp pour ñu mën a toog si ñett yi daal yaakaar naa ne buñ si bàyyee xel liggéey si bu baax nag fekk tamit du waxum kii nii rek am na ñuy yéene bi wala ñu ngi koy jéem du jéem dañ koy def teg si xar suñu tànk tubéy ñun ñëpp accompagner état état tamit jàkkaarloo ay partenaire am à l'extérieur ne leen lañ koy defee su boobaa amaana ni immigration irrégulière bi dina wàññeeku lu bëri. ñu wax ci li xew ca Maroc dégg nga coow li lu ëpp ci deux cent migrants sénégalais tey ñoo ngi ci frontière bi euh, di ut euh, yoon mais dañ leen fa bloqué euh, tey nan nga jàngatee li ni mel. waaw xam nga ñun ay lanceur d'alerte lañu. y a de trois semaines. si seen benn rajo ay naataango. si si si ngoon euh, waxoon naa ko fi newoon naa leen ak jug bi nit yi di jug di ñëw tabaski si mm-hmm. et lii di nekk lii am euh, port bu Tanger euh, njiit yi autorité yi buñ si jugulee dina dina indi problème bu rëy parce que li am port de Tanger xam nga Tanger Maroc dafa nekk zone de transit ñi jógee Europe yëpp bu ñu ñëwee Maroc euh, Tanger la ñu sotteeku pour ñëw Afrique mhm. donc foofu boo ñëwee boo yoree camion wala nga yore oto da nga war a fay benn caution xaalis la boo xam ne dañ la ko war a delloo mais marocain lu ñuy def mooy ni que ñoom amuñu prix bu fixe boo xam ne boo ñëwee rek danga nga war a fay lii rek nga jàll ñoom chaque jour boo ñëwee soit dañ koy yokk wala dañ koy wàññi mën nga ñëw tey ñu ne la ci temps la gannaaw suba ñëw fekk yokk nañ ko donc bu yokk yow da nga génn sa dëkk nga génn sa kër jàpp ni lii su ma ñëwee lii laay war a fay nga ñëw fekk ñu yokk ko fekk yow yoroo xaalis boobu da ngay am problème donc bëri tey ñu bloqué wu si port boobu parce que bi ñuy génn li ñu yaakaaroon ñu ñëwee moom la ñu fay suñu ñëwee dañ koy yokk donc ni ñu ñaan suñu autorité yi nañu waxtaan ak autorité portu Tanger ñu xam camion bu nekk poids li ngay pois bi nga am pois bi su ñëwee ba si port bi pour mu transiter temps lay fay bu ko defee waa ji balaa muy génn dëkkam moo xam ne su ñëwee transiter lii la war a fay du du si am benn coono mais depuis boobu ba léegi problème bi am na te wax nañ ko waxaat nañ ko man dama si wax waxaat ko donc ñi bloqué wu nii ñun en tant que lanceur d'alerte lenn lañ si mën mooy yëgal askan bi yëgal autorité yi que lii war na mën a am ñu faajaagal ko balaa loolu di xew. tey ji manque de réaction euh, autorité yi parce que nee ñoom jot nañ leen euh, saisir mais ba tey mënuñu leen jot wala mënuñoo euh, wax ak ñoom li ni mel ñu yàgg ko dégg ci yeneen dëkk yi tamit euh, tey mbir moomu lan lay def justement ci su doomu réew mi ñu nekk ci yenn dëkk yi. waaw xam nga ñun man mënuma si lu bëri li ma si mën mooy ni jàngat xam nga ñun dañoo jàngat situation xool càmbar ko xool ah li mooy solution yi wala lii lii leen si war a waxee mais ñun kenn faluñu amuñu nombre kenn ñu amuñu pouvoir politique donc ñi yore pouvoir politique yi ñun wëccu ñoom wax leen li ñu xam ak li ñu dëgg jël suñu téléphone ñi nga xam ne xam nañ leen am nañu relation ne ah lii ak lii ak lii fexe leen ngeen saafara ko balaa muy kii donc loolu lañ si mën la teel leen ko yëgaloo waaye nag dafa métti tuuti dafa xaw a kii nga ngay wax ak ñenn ñi ñu lay dankaafu mel ni comme li ngay wax da leen gêné alors que ñoom la ñu fal ñoom ñi ñu fal ñoom la ñu nommé ñi ñu nommé ñoom la ñu jox mission boobu ñoom ñoo ko war a dox dañu war a am mun a am réactivité boobu jéem a régler yenn problème yi anticiper yenn problème yi balaa problème yooyu di am lii biñ ci commencé wax boobu ak léegi ça fait presque plus d'un mois suñ ci waxoon kon tey situation bi ñu toll nii bu buñ ko jéemoon dox wax ko kon tey amaana situation bi ñu nekk di dund du ma doon ne day métti mais amaana na kon dina doon gën a woyof si ñooñu. wax nga ko euh, tey jii plaidoyer booy que tamit am na benn bi nga xam ne Euh, bëri na liñ koy gis ay sénégalais ñu leen di tudd euh, ci ay mbir yi nga xam ne euh, yoon da cee am yoon foofa bitim réew tey ji loolu lan la mën a gàllankoor ci der ña fa ne doon ay sénégalais ak it ña nekk fii bëgg ñoom it tukki. waaw xam nga loolu maanaka day gàkkal deru immigré yàlla nañ ci yàlla musal mais tamit xam nga tukki dafa yombul. Euh, ku xam tukki léeg-léeg nga génn tukki tumuranke boo tumuranke sonn yenn coono yi nga jaaxle boo jaaxle yenn yi doo xam loo def te ku jaaxle yenn jaaxle yi ah sa xel dem euh, dina la pousser nga dugg si loo xam ne waroo si woon dugg wala nga def loo xam ne waroo ko woon def loolu moo tax ñenn ñi nga gis ba seen dañu tàkkaloo ak seen sago ñenn ñi di reyaate ñenn ñi dugg si ay sàcc ñenn ñi dugg si jaay drogue parce que dañu dem ba dañu tumuranke yàlla nañu si yàlla nag musal donc loolu yëpp tax na ni ñun suñu biir ay wax waxtaan en général suñuy waxtaan suñu mbokk yi si ay conférence si ay débat si ay invitation yu ñuy def bitim réew pour waxtaan si wàllu migration à chaque fois bu ñu siy waxtaan rek dañu sensibiliser encore suñu mbokk yi xamal leen ni que ku si nekk si ñoom ak situation boo munti nekk lu mu munti métti métti jàppal ni gor nga doomu aadama ngor-ngor rek la lu métti doomu aadama lay dal mais ñu rax si dolli nga xam ne sénégale nga foo munti nekk africain nga mun munti nekk yow ambassadeur sa dëkk nga ambassadeur boobu war na mën a tax yow ak situation boo mun ti jàkkanteel waroo def lu ñaaw waroo def lu tax ñu lay xeeb waroo def lu tax ñuy xeeb sa dëkk ñun daal à chaque fois bu ñu amee opportunité waxtaan ak askan bi bitim réew toog waxtaan si ay conférence toog waxtaan si ay débat toog waxtaan si ay panel dañ leen di soñjaat xamal leen encore seen bopp encore sensibiliser leen encore pour ñu gën a seen bopp pour ñu gën a nekk ay ambassadeur seen réew bu ñu nekkee bitim réew ñun loolu lañ si am loolu lañ si mën ah léeg-léeg nag dafa ñaaw trop dafa ñaaw trop nga gis parce que yow tey am na lenn loo xam ne boo ko defee rek euh, ñëpp duñ la ko xoole yow sa askan sa réew lañ koy xoole te loolu nag euh, wax dëgg yàlla rafetul rafetul ñu si benn doomu aadama def rek ñu koy xoolee askanam yëpp wala ñu koy xoolee réewam yëpp. Souleymane ñu ngi leen di remercier euh, di jégalu nag su nekkee wax ji am na lu si xaw a gàtt wala am na lu si ay gàkk-gàkk ngeen xam ne doomu aadama ak wax moo moo yombul rek. dëgg la euh, ñuy fàttali ne yow yaa jiite euh, ONG Otra Africa.